xam nga man boo gisee ma dëgër bopp ci sëñ Touba <clears throat> mooy man sañ Touba rek ma dimbale dama la wax ne la néew dooleeg samay way jur moo gàttal sama njàng sama way juru jigéen yàlla na ko yàlla dolli ay leer bi muy génn àdduna ci ci ci ci coono rek la génne àdduna booba maa ngi ko duma ko fàtte rond-point dindi fu ma fi tollee rek sama àdduna tukki booba sama waajur wéree dina aw ma fenn fu ma jëm am na sax ñu ma bokkal ñoo xam ne woo naa leen bis na leen ah man ne sama waajur wi daa wérati bëgg naa ko ma ci dimbale ñu kenn ñu ne ma ah, yow kat kon comme comme nay nooy faje sa waajur nga xam jigéen bi muy génn àdduna ci ñàkk moyen nu mën koo taxawu ci la génne àdduna loolu am na booba moyen jafe na màggal da daan ñëw nañuy dem sax Daaru Xudoos pour wut foofu yàpp pour indi ci kër gi bu dee tabaski sax man naa am wala noonu sama taaw bi muy juddu sëñ Moustapha Guèye mii bi ñuy fekkee ci néeg bi na ma xale bi juddu na boo leen amee ñaar fukk ak juróom jënd ci eh, xaaju kii diw amu amu amuñu ko nga xam ne dem nañ ba deux heures ma door a am douze mille cinq cent ñu jaar ca ginnaaw xotti mbubb bu ñëw jox. jox soxna si mu sol ko sama taat bi mu jigéen bi mu génnee àdduna biñ ko saraxalee ba noppi dañoo fayee lépp ay bor mu des quarante cinq mille quarante cinq mille yooyu maanaam ni donga di majjaale noonu laa ko doon yalwaane amul mënuma am bànneexu événement ndax bu ma sañoon yàlla mooy mooy mooy mooy dogal ci ab jaam daal sama way jur u góor day jooy ba dafa silmaxa daf may wax ne li nga am te sa way jur fekkewu ko moo metti bu ko fekkee woon ndax mosul dund noflaay mosul dëkk ci néeg buñ tabax mosul dëkk ci courant mën naa ne mosul naan sax galaas ndax ndax gisu ko amul fu mu koy fu mu koy fu mu koy fu koy jële waaw ak coono ak daw rek nekk jëfkat boo xam ne nag son son way juru góor gërëm na ko wax ma ko ma ko wax guddi ma ko wax bëccëg wax ma gërëm gum ko gërëm keroog bi ma génnee àdduna maa ko defaat ci oto bi ba ñëw fekk ko fi mu nekk mën na ko bàyyi mu wuyu mën na ko sama yaay fàttali gis ko mu di ko jooy ba bisu tey bii dafa silmax saa yu nuyoo rek lu ma ne ko ah na nga doolee ñaan mu ne waaw góorgóorlu rek nga seey dafa baax. ba ci sama famille yëpp ku ma wax loolu am moo tax man mënumaa bew mënumaa réew sama waa kër xam nañ ko duma ma du ma denc sax ceeb sax amul jënd denc bu nit jaaroon fii ci mbedd mi tey di yalwaan wala nit am problème dañ may nëbbu waaw jamono bu nekk nii léegi nii ci bëccëg laa jóge hôpital sax nga xam ne moo wéetee nii rek bés bii di ñëw nii nit ñi ñëw rek damay sama tension day wàcc toujours ndax maa ngi xalam way jur yi ni mu yéene woon bëggoon ko te mënoon a fekkee tey sëñ Touba dimbali ma man ma mën a jël en charge may jël en charge ay junni ay nit di leen entrer woo demal ci hôpital yi bu la neexee nga laaj leen day am ñoo xam ne duma leen xam sax dañuy jaaxle ma jël en charge ci ñoom lu dul jeex bu ma goree waruma seetaan ku sonn ndax man ci ñàkk ak coono la ma sëñ Touba jëlee sëñ Cheikh boo gisee du du bànneexoo maanaam man mënuma maslaa ci sëñ Touba mënuma ci ruus kenn mu kenn mënu ma cee ñot di wax ma ci lenn lenn lenn ba ma déggoo damay wax naa ne Jibril sax bu doon wax pour lu juuyoo ma dégg sañ Tuubaa du ma ko déglu waxuma la ak nit man sëñ Tuubaa dafa jëflanteeg man jëflante boo xam ne nii dara dara dara du ci kii waaw jëlee ma foo xam ne yóbbu ma foo xam ne tey ah euh, mënuma ko woon loolu moo tax ma ne la mënumaa bew mënumaa fuuy mënumaa reew mënumaa yëg sama bopp waaw la la sëñ doon wax boroomam wal tubashir bi yal yataama dawaama anjim bi abahum ku laxiini man dafa dal ci man yàlla yow nag ma na bégal ci man jirim yi fàtteloo ma ci ñoom seeni ndey ak seeni baay loolu dafa maa dal ci sëñ Tuubaa dafa ma fàtteloo ñàkk wayjur fàtteloo ma ñàkk fàtteloo ma tumuranke fàtteloo ma lu nekk nga xam ne euh, lu bari neexu la mën a expliquer waaw sëñ Tuubaa moroom ji niy wax gëmee nañ ko ci yu bari waaye damaa bëgg nu gëmee ko ci gëmeewaat ko ci man xam ne fii la ma sëñ fekk man fu suufe fii fu ronu fii fu ruqe fii la ma sëñ Tuubaa fekk génnee ma fa waaw fii la ma sëñ Tuubaa jële waaw lëndëm gi kon joxañ bi ma doon joxañ naan suñu waa jàngee la la laa bëgg xam ne man jën malaas boobee ma faru mooy mooy sëñ aw ma nag lu ma mën a def mën naa woote sant ko muy lu ma gëm nag woote ko ngir bëgg lu ma ci am bu doon alalaay bëgg du ma ko ci def ndax li ma ciy def mënu ma ko am bu ma ciy am li ma ciy def ko ci am waaye bëgg naa daal ab bis boo xam ne lu gàtt gàtt dara yëngu sax ñu ne lu ko yëngal ñu ne Gana Messere lay sant Sëñ Tuubaa waaw bëgg naa ko daal. waaw loolu moom bëgg naa ko moom waaw yëg ne daal maa ngi sant sëñ Tuubaa sant xol nag ak cër ak làmmiñ ak lu ma am te man ko def ko ci moo tax may tàllali ñëpp loxo ñu jàppale ma ci ngir sëñ Tuubaa ci jàng alxuraan jàng xasiida taxawule ma bisub sëriñ Tuubaa bii nga xam ne sant sëñ Tuubaa rek laa ci jublu ndax boo santee sëñ tey sa way wa nekk barzaq bu bis ba yëngoo ñu ne lekk koy def ñu ne Gana si rek way juróom mënut a ñàkk euh, yëg yëg loolu hmm? mënut a ñàkk yëg loolu kon moom ma nga ca biir say maam sax da leen di ràmmuwaale yoo xam ne démb lañu woon lekk ci leneen da leen di ràmmuwaale ci biir bisub sëñ Tuubaa boobu moo tax ma ma ma woote ko ngir sant sëñ Tuubaa rek nag sant gu ma gëm goo xam ne moom jëmmi sëñ Tuubaa xam na ne man maa ngi koy sant sëñ Touba xam na ne moom xamal na boppam ne man Gana Messere maa ngi sant sëñ Touba wallaahi asim maa koy sant moo tax ma wax ne benn jant bu fenk ma nar a boole sëñ Touba ak dara man balaa soon naa dem faatu wallaahi asim barke Xaadimu Rasuul waaw lu ma mën nag danaa ko def ci jomm ak ruus ak waa kër sëñ Touba ak waa kër sëñ boo gisee bu may défendre. du ma nangu tudd sëñ bi ma nangu tudd waa kër sëñ mooy ki ma doon laa xam man maanaam man tey am na ñooñ jaral naa leen dee am na ñoo xam tey boo ne woon gànn jaral na ñàkk seen bakkan waaye léegi gànna mooy kat ku sëñ bi jëlee ci pax ragg la ba nga set faxas la teg la nee rek nga jaral ay nit dee kon ña sëñ bi tànn bokkoo leen yow boo amee jom yow min jële ci pax mi yow waroo nangu ko laal ñii boo amee jom loolu rek la man xooluma nu kenn mel man ni ma meloon man ci laa xool man man man bokkuma ci sama yoon nekku ci laaluma ci sëñ bi jëlee ma ci indi mi kon man bu ma amee jom te am ngor te di ko xool moom ndax man bu ma bu ma ŋàññee kennam moom bu ne ma gànna yow faa la jëlee baa la fay jëlee tagguma kenn kon man lan laay wax moo tax du bu ma doon bu ma doon défendre ku ma man di défendre ci adduna it loola laa ci jiitam moo tax yàlla di ma ca may ndam kii de man maa dem ci bu sëñ Touba bu ñuy ñaanee ñuy dugg di ñaan ma ne man damaa rusatee ñaan sëñ Touba dama ko rus ndax li te yaakaaruma woon ne danaa ko am sëñ Tuubaa dama ko defal kon bu ma taxawee di ko ñaan du ma gor lu may ñaan sëñ Tuubaa laa xamatul te mosuma ko gént mosuma feeñu ah te amul lu may bëgg te dimbaliwu ma ci kon bu ma taxawaatee di ko ki lay jox te doo ko laaj di la jox loo xamul ba di ko ko laaj boo taxawee di ko wax dara rek góore looloo tax man du ko wax dara. du ko wax dara damaa ñëw rek ñi ma ànd ma leen ñaan leen man awma lu ma koy wax ndax xaw ma lu ma bëgg lu ma amul yàlla xam na ko loo xam ne bu ma tëddee guddi dama naan nangam lii bu ma ko amoon man xaw ma ko moo tax may tàllal ñëpp loxo ñu jàppale ma ci ngir sëñ Touba ci jàng alxuraan jàng xasida taxawule ma bisub sëriñ Touba bii nga xam ne sant sëñ Touba rek laa ci jublu